Mm-hmm. su fekkee ne da fàtte yéene tey waaw démba ba tey fàtte bi mm-hmm. kon sa koor tey moom duñ ko wëral mm-hmm. waaye soo yéene nag tey continuer dañ ko wëral waaye su fekkee da nga tey nag ñàkk yéene soog or du wér yéene gi naka innamal a'maalu binniyaati da ngay fas jërëjëf da ngay fas yéene ne maa ngi fas yéene or weeru koor yi at mii mm. wala weeru koor yi yàlla wi Mm-hmm. bu ne weeru koor yàlla bi yàlla xam na ay weeru koor mm-hmm. bu ko defee nga suubu ci koor gi mm-hmm. boo indi loolu nag indi waa leen nga bési yëpp waaw léegi imaam du ñàkk nag am nañu ñuy seetaan te xëj na eh, démb bi ñuy um eh, fàtte nañu fas yéene waaw sa waxtaan bi ñu fas yéene nag pour tey ñu yéene or weer wi léegi koori tey bi nag nuñ koy def koori tey bi comme ñoom ñoom ñoom waaw dañ koy fay dañ koy fay waaw éni hmm. bi daal forcé nga éni éni bu wér. waaw boo éniwu sa koor du wér. Hmm. léegi nag euh, euh, foofu sax soxna Aysa boo demee ci fuqaaw bu fekkee ne comme su doon julli la. Hmm. xam nga booy énee julli tisbaar. Ah. jaxase euh, tudd takkusaan. saan ah. juum juum tudd ah. takkusaan. pour wan la ne éni ci xol la. tudd gi. maanaam am nañ ci ay ute. bu boo jaxasee tudd saan sa éni dafa dal di wér. moo tax foog eh, borom xam-xam yi dañ lay oy tundikoloo di tudd éene ndax mooy tudd mën ngaa jaxase am na ñu ne da koy tudd ngir gën ko wéral waaw baatal ko waaw am na ñoo xam ne waaw am na ñoo koy fas ci xol ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi a'malu binniyaati wa innama li kulli imri'in ma nawa éene jëf yëpp yàlla nga koy fas ci éene teg ci ene ni ku nekk la nga ene rek loolu la yàlla defal waa léegi ene koor gi nag xam nga ku dem bay naafi la nag ba kii loolu fas yéene nga oor jërëjëfati waaw boo ko waxul sax boo gisee nag ñuy ñu lay ba ñu bëgg ngay naafe la guddi yi koor xam nga guddi gi nga xam ne nii yow su fekkee ne da nga jiital guddi mm-hmm. danga jiital guddi kon mm. guddi gi weer wi tero comme tey bu fekkoon ne ëllëg dañ ne dañ war a or kon guddi tey gi dafa mel ni mooy guddi ëllëg waaw kon ko war na ndax mu ngi bokk ci guddi weeru koor waaye su fekkee da nga bokk ñi nga xam ne ni guddi dañ koy mujjanteel mm. maanaam bëccëg moo jiitu guddi mm. kon dafa mel ni guddi tey gi soo ko doon naafe la danga koy naafe la rek pour fas ini waaye nekkul naafe la boo xam ne dafa bokk ci guddi weeru koor ba nga ci dundal guddi weeru koor waaye ñenn ñi nga xam dañ day jiital guddi ci bëccëg kon moo tax bu buñ ne weer wi teru na balaa ëllëg koor di war ñoom ñëpp dañuy jóg ci guddi gi dundal guddi gi ndax guddi googu ci guddi weeru koor la mhm. waaye dundal googu tamit da ngay gis ne tamit chance la pour ñu gën a mën a dëgëral seen iné mhm. moo weer mu ngi waree ci weeru koor mu ngi waree tamit ci gént wa saa bil aqli wa bil islaami weeru koor mu ngi wéree ci am xel ab dof bu ooree kooram wérut ah, kaafir bu kooree kooram wérut Mm-hmm. fa man kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin uxar mm-hmm. ku nekk ci yéen koo xam ne dafa feebar mm-hmm. wala mu nekk ci am tukki na lim fan yim feebar wala fan yim nekkoon ci am tukki fay ko yeneen fan yoo xam ne tukki wut wala nekkul ci feebar moo tax ki dof ñuy wax ne ak dofam lu mu yàgg-yàgg su wéree dafay fay koor yi waaye dafay julli ndax dañ ne dof feebaru xel la te kon alquran ne fa man kaana minkum maridan ci yenn fuqahaa yi moo tax ne dof dafay fay ay kooram a tàmbali jërëjëf su su fekkee ne ci charia al islam yi la euh, euh, nit moom mooy kañ lay kañ lay masuur kañ lay macco hmm. nit mu ngi door kooram saa yoo xamee ne baalix na baalix nag mooy koo xam ne macco na hmm. ku macco mooy kan naka lañ ko xàmmee hmm. ñu ngi xàmmee ku macco ci ay mandarga yu bari soxna Aida su buñ la ci wax ci at icc icc mooy fukki at ak juróom-ñett boobu nag mooy bi mujj waaye danañu xàmmee ku macco ci bu ëmbee xam la wala boog mu gis ma niyu ci boppam mhm. moo xam ci gént wala ci jotee mhm. bu dee góor a jigéen ñoom ñaar ñoo bokk boobu mhm. bu dee xëmb la jigéen moo ko moom góor moomu ko wala ñu sax kawari naq ñoom ñaar ko bokk wala kawari pokataan ñoom ñaar ko bokk su bu fekkee ne loolu amut xam lu saxar mooy am ëm bu feeñ bu loolu yëpp amul nag su nit amee fukki at ak juróom-ñett kooku macco na moo tax tubaab bi ñoom balaa ñooy wax ne Euh, kii baalix wala ku macco ci mal wàllu réeb dañoo wax ne soo amul soo soo tëddee jigéen ju amul fukki at ak juróom-ñett mhm. da nga ko réeb parce que dañoo wax ne macco wut waaw fekk balaa loolu islam wax na loolu mhm. islam diinaam ji sax mhm. balaa koy sant kenn daf koy sant ki nga xam ne mooy kii baalix kon sëy yëfi diina la islam daf koy tere ñu def ko koo xam ne baleexul mhm. moo tax tubaab bi di wax ne ku sëy jigéen njëkk balaa juróom-ñetti at yow dafa mel ni da ko fukki at a juróom-ñett dafa mel ni da nga koo ak yi ni mel fekk islam wax na kon ki mhm. ki ki nga xam ne moom la koor war mooy ki nga xam ne ni baleex la mhm. mooy ki mat ñi ki mat nag ñu ngi koy xàmmee ci màndarga yi borom mursid wax na ko. Mm-hmm. waaw xam nga léegi wax nga ñu fii eh, or niñ koy defee mm-hmm. ñàkk lekk ñàkk a naan. Mm-hmm. Eh, mooy yéene jaamu yàlla bànneex. waaw léegi bàyyi eh, tamit mu kayefaar yi lu mel ni que bàyyi tux. waaw bàyyi xeñ xet gu neex. comme cuuraay yooyu yëpp daf ci bokk. soxna Ayda waaw. waaw léegi su fekkee ne yaa ngi war misaal wax nit ñi naka la nit di oor kañ la nit di war a oor mhm. ak kañ lay dog maanaam eh, waxtaan wu ma fi daan def Alaaji Ousmane Dia mhm. wax na ne su fekkee ne nit ki mhm. yaa ngi war a wax lan mooy julli da ko war a wane ne ay kàddu la ak i yoo xam ne mu ngi tàmbalee ci kàbbar jeexee ci sëlmal waaw léegi nag koor aqwaalun wa afaalun muftatahatun bi takbiir waaw bi taslim julli ay jëf la ak ay wax yu ñuy ubbee dooree kabaru xarmal tijjee ko ci sëlmal waaw ba mu doon koor waaw léegi koor nag mm-hmm. koor kon suñ la ko waxee mooy mm-hmm. dangay ngay iini bàyyi lekk mm-hmm. bàyyi naan bàyyi lépp loo xam ne nii xeetu bànneex la lu dooree fi jant bi di fenkee ba faa jant bi di soxee mooy balaa ngay julli fajar lan mooy balaa ngay mooy boo julli balaa ngaa julli fajar mhm. eh, maanaam tuluu shamsi bu fajar xasee jot daal moom xëyru mi na naw mi rek waaw bu boobaa fajar xar na waaw fajar bu xaree waratoo faa lekk waratoo mm-hmm. moo tax yonent bi saa sam ne ne bu fekkee ne weer eh, bëccëg bi dooree na fii ida aqbala nahaaru min haahuna mm-hmm. wa adbara min nahaaru min haahuna waqad wa qarabati shamsu mm-hmm. eh, faqad aftara saimu yonent bi saa sam ne ne bu bëccëg dooree fii fekk boobu fajar la ci doon wax jeexantelee fii mooy jant bi so mm-hmm. mu ne jant bi dugg bu boobaa ki oor na dog kon koor ay jëf la yoo xam ne mooy da ngay bàyyi lekk bàyyi naan bàyyi luy bànneex pëy ak biir shahwatay banni mooy shahwati shahwatay banni wal farji ñaari bànneexi muy bànneexi pëy mm-hmm. ak biir mm-hmm. lu dooree fi jant bi di fenkee ba faa jant bi di soxee loolu mooy koor soo nag ba ma bëggee laaj na ndax jëw yéeg waaw waxa mbóosóor yéeg mm. yooyu ndax ci la bokk mm. danaa la wax waaw mm. waaye nag dafa am loo xam ne nii yonent bi saa sam wax na ko ne ne man lam yadda qawlal biri wala wala amalu bi fa laysa lillahi xaaja fii an a taamahu wa sharaabahu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ne ku mënta bàyyi wax ju ak jëfee ko yàlla amul xaajo amul soxla ci nga bàyyi sa lekk ak sa naan mhm. so ñenn ñi di wax ne kon ku oor jiw sa oor mhm. dog na ku oor fen sa oor dog na ku oor sàcc sa oor dog na déedéet soxna Aysa dogu ko dogu ko bokkul mhm. ci yi nga xam ne ñooy cosaan ci luy ah, dog koor loolu atte boppam la loolu at loolu maanaam xadis bi yonent bi saa sam daf ko wax pour wane ne bu fekkee ne koor euh, kutiba aleykum siyaam kama kutiba alal lazina min qablikum laalakum dama ko farataat yéen ngir ngeen ak sàcc ak yi ni mel bokk ci ragal yàlla te en la bi tax yàlla farataal ci nit koor mooy ragal yàlla kon kii koor dafa mel ni li taxoon ñu ñu ko doon oorloo ñàkk na ko moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ku mënta bàyyi jëw ku mënta may waxit ju bon jëfee ko yàlla amul solo ci nga bàyyi sa lekk ca naan kon xale yi nga xam ne ñu ngi or tamit war nañu oytandiku di dem ci bij bi ak di ànd xale yi jigéen ñi naan dañoo dàq koor hmm. yu ni mel loolu na koor ah, ah, ga dàq nga ko ah, koor ga dàq amatoo koor sëñ Moussa Gueye day wax loolu naan dàq ñu wax ne ñu ngi dàq koor hmm. wax nañ dëgg dàq nañ tiyaabo ja kon na nga kon bi saa sam waxaa na ko ci benn xaddi sax hmm. ne bëri na kuy or ak kooram amut ci lu dul maraqiif loolu mooy ñi nga xam ne dañoo or te or du leen teree jiw du leen teree fen du leen teree sàcc du leen teree nafiqa mhm. du leen teree wuruj mhm. jikko yu sewant yooyu nga xam ne mooy bisikaal yi jikko yu rafet du leen ci tere dara ñooñu seen koor amul njëriñ waaw loolu am na solo yaa imaam dañ euh, seetlu ne mhm.